fekk te mu doon ay principe ak seen yëg-yëg ci wàllu politique ak ni ñu koy interpréter euh, Abdoulaye Wade dafa ñëw jàppandalal ñu ubbi ay tele yu bëri ubbi ay rajo yu bëri muy baale lu bëri jàppandalal ndaw ñu am métier bi euh, am liggéey mais loolu ñiy remplacer alternance Abdoulaye Wade waruñu ko wàññi malheureusement ñoom dañu ñëw fekk. laneen changé muy télé yeeg rajo yi laneen li ko changé mooy euh, site internet yi mais mënuñu sax distinguer site internet yi xamoo la El Amine Senghor créé benn chaîne YouTube du site internet du site web am nañu ay techniciens mais ñoom politique ñoom ñuy def politique c'est-à-dire maîtriser wuñu sax lii mooy lii wala lii mooy lii ak définition wu euh, kenn ku nekk ci wàll boobu Babacar Touré bi muy nekk journaliste d'investigation mhm. di liggéey laata l'observateur bi mu nekk observateur li mu bind ci ay livres tey nga falu tey wala entre temps nga nekk fi leneen mhm. mais ki koy topp ci wàll yoon daf ko ëpp expérience daf ko ëpp connaissance mais nañ leen nañ nañ def ñoom face to face ñu jàkkaarloo pour euh, ñu xam li mu wax am na wala amul mhm. euh, Pape Alé Niang la même chose gis nga gis nga dafa am àndam bundu xatal taskatu xibaar boo xam ne du jàll Sénégal de parce que ñoom ñi am doole ji di ko jël ci kaw taskatu xibaar yi li leen fi bàyyi mooy démocratie gi tax ñu falu démocratie boobu moo jox taskatu xibaar bi sañ-sañ mu opte nekk boo xam journaliste d'investigation wala muy def ay enquête bisu tey bi bis bu lëndëm la ci Sénégal bis bu ñuul la ci Sénégal ci ñetti exploitation yu bokkul patron de presse ñu ngi linge journalistes yi di leen fay ay salaires yu misérable jàppe leen comme ñu tekkiwul dara utaluñ leen fu ñuy naan café utaluñ leen fu ñuy lekke ay reporter yoo xamante ni bi lekkuñu naanuñu solowuñu patron de presse ñoo dàq yuus taskatu xibaar yi boo ci jógee état bi itam yow nga nekk journaliste mag état bi ñëw yow bu fekkee da nga jógee ci taskatu xibaar bu ndaw sa patron de presse yuus la ba nga xaw a dëgër am expérience état teg la ba di la yuus mais xanaa kon doo na nga tekk ci sa dund <laughs> ba ci bi ci des mooy askan bi askan bi itam mm-hmm. su ma su ma da su ma invité ku mel ni ma faal moo fi nekk ci moom donc da laa jël exemple quoi mais yabu ma la nag mais comme yaa fi nekk. su ma invité su ma posé question wala ma attaqué waa PDS. Mhm. képp koo xam ne militant mu PDS nga te sa xel eggu fa maanaam xale yi. da ngay toog sa kanamu téléphone saaga ma ba doyal. donc taskatu xibaar bi dafa exposé wu ci ñetti parti mhm. état patron askan bi mais kañ kañ lay mucc. fit dong lañ génne te nguur gi nag moo ñu war a protéger. kon Birame Gilles Babacar mi nga xam ne évacué nañ ko ci hôpital principal bu Dakar gannaaw crise bu mu def. waaw ñuy ñaan suñu.